ndax nay moytu njolloor bu njolloor jotee nu muy mel dootul nekk ndax waxtu wi xaarul kenn te sori te ñun kenn koo wax waxal nga ñëpp li am solo gannaaw boo xam ne wóor nañu ne tey jii ñu ngi ci Dakar xalifa Sëriñ Ahmed Iyane di nuuree di maam Ousmane Sy it nekkal ñu ca Ndar ñu bokk tey di def benn jifit mais fokk ñu xam nan moo jaxase si ak ñas ndax ñaari ceerlu maam Ousmane Sy ñoo am kenn ki Seydil Haaji Maalik kenn la ci ndey kenn la ci baay gisul baayam ndax jant la te jant du feeñ diggu guddi du feeñ diggu bëccëg diggu guddi diggu bëccëg la mën a génn moo tax mënuloon a jàkkaarloo nag baayam kon ñaari jant dafay Ousmane Sy moo jur Seydi Ahmed Iyaan Sy moo jur Seydi Alxaaji Malick Sy te Alaaji Malick mi jur bàyyi kii moo tudd Alaaji Malick tuddee ko boppam ca Njolofeen ca Ndar moo jur Serigne Moustapha Sy ci Tëngéej moo jur Maam Boubacar Sy ambassadeur tey jarbaatu Thierno Mountaga Tall Serigne Ahmed Yane Sy taawloo soxna Aïda Sy miy toog kii taaw bu góor bi Cheikh Mouhamadou Hawa son maam Cheikh Mouhamadou Hawa nañ ko tuddee moo ci moom la topp kon nag lan moo dugal Serigne Ahmed Yane Sy ca ñaseen loolu bu ngeen fi jógee te xamu leen kon ñoom ngeen pour rien. dëgg la. dañ ko soloon soldat ci 16 ans. mu dem Kaolack. bàyyi ñu ne ko télé mosuñoo gis téléphone amul mosuñoo déggante waaye bu muy baati ñi mu fee jóg lu ci yoonu xaatif di waxtaan ba sëriñ Ahmed jaaree ma keroog bi Xalifa Ñas di joxe muqaddam doomam alaaji Abdoulaye di taaw taxaw daf ko ne bala laa jox doomi Ousmane di laay jëkk jox mooy sama taaw mooy sama premier muqaddam loolu bind na ko bàyyi fi loolu moo indi man ak arab bi ak Sidi Lamine sama rakk ñu jaar foofu ndax dañaa ñaari kër génn kër Ceerno Ousmane moomu nag jur si Ahmed Yaan moo jur soxna ay demi jur nóoree ni ma ca kër ga jur ki nga xam ne mooy Zaki jurit soxna Seyna Bussi ak Umaani Umu Haani nag moom mi ngi fi soxna Ayda mi ngi fi yàlla gudd fan te wér te mag lii may wax sax ay waxam la ndax mooy taaw lii wax dëgg yàlla mooy soxna ndax yàllaa ko jiital ku mu neex ndara jëgg nekk capital ku mu naqari keneen mënta nekk première capital nay gisaguma ku dàq ceebu jën te ñoom ba léegi togg buñ coof ñu ngi diggante jarañ ak dee mais caaw ceebu kenn du añee ndar bëgg a te ñi fa dem añ foofu mu bari nañ lool waaw ah. yegg ngiro yegg ngiro ndara ko ndax seen teraanga seen yiw seen baax ñu baax ñëpp la ñu feeñ amul kenn ku ku baax ku ñu sow tey la doon ndar nga tàkkee ñoo njëkk gàmm ñoo njëkk julli jumaa ñoo njëkk jàll jàngale alxuraan ñuy def ci Sénégal ci ndar koy reyee te ndar euh, euh, maanaam ci turu addaar la jógee kër kër la addaar addaar mais jigéen addaar lañ lañ ko te addaar wala amatu léegi hmm? addaar waaw kay mais addaar affaire boobu waaw kon nag bu ñu yàlla mayetee ba ñu dajee danañu wax lan mooy taarixu Ndar Ndar ñëpp ñëw jël ko tuddee ko Sainte Mairie noonu la ñu ko tudd Sainte Mairie ñu ngi ko jël ay ay Kumba Mbete yooyu yëpp ay turu anglais la yoo ne moo jiitu woon anglais yi ñoo sant français ñoo ne ko doon ci ñoom ñu geeraat ba mu nga wax ci français ba muy ñetti yoon loolu indi barko indi baati anglais ni ci wolof ay fitti nag róom ak lanca euh, legg ak sottal ci am si du am toog am si lu fa lu yàgg la mais nit la jàngal ci leen seen démb ndar dafa njëkk ci xam-xamu nasaraan njëkk ci diini lislaam njëkk ci tarixa kaadiriya njëkk ci tarixa tijaan njëkk ci tarixa muridiya ah bu dee tubaab lu ñu leen ñaar rakkee ndar lam Dakar wax leen ma rek. ndar loolu tax ma ne un zéro. d' accord ñu ñëw d' accord un zéro. ta marché beeg si quatre-vingt-dixième. un zéro. ndar dóor na un zéro Dakar. kon nag ndar ñooy tey exemple boo xam ne ñun ñëpp dañ ci war di roy parce que Sénégal ñëpp nga xëccoo di xëccoo taalibe di saagante ndar rek ñoo xamul loolu lu mu mel maa ngoon ndar keroog 1962 keroog bi nga xamee ndar dafa gañandoo espoir euh, espoir gagné coupe bi Saint-Louis gagné championnat ñu boole lépp ci benn autorail maa ngi taxaw keroog booba ndar boobu ndaray ndar kon nag nañ xam benn affaire ndar ku xew la ñëpp taxaw tariixa ñëpp taxaw mënoo ñëw ba fekk benn xew nga xam ban tariixaa ko waaw bàyyi dafa dem ci jooju jamono boobu tiyaan yi bëreeguñu xaalis bëriwul bëriwul mu fekk macha allah ñii indaal yi mu tàkku saal yi ñu jël seen i di tëgg naan pëppal bëri yéeti Abdul Xaadir Jaylaani ah pëppal ah. bëri yéeti Abdul Xaadir Jaylaani ñu di ko tëgg ay tabaram dara mel ni maalaka la mel ni du ko àjjana tijaan yi daje wax sama papa ne ko xaadir yi dañu ngi yow xutbul bëreeti abdul xaadir jaylaani ñu nag lu ñuy wax mu daal leen sosal leen xawsul bëreeti miftaaxul wilaayaati cheikh tijaani miftaaxul di jannaat قوم wax leen ne ahlan wa sahlan ñëw ngeen ci kër goo xam ne seen kër la na ko shaa'ir ba waxoon yaa dayfana law ji'tana la wajadtana nahnu duyuufu wa anta rabbul manzili ee gan suñu boo ñëwoon ba sunu kër da fekk ne ñun ñooy gan ñi yow yaay sunu njaatige bi ñuy tatagal ko kon yéen may seen gan yéen ay borom kër gi rawatina shérif bi nga xam ni alaa kulli man shérif yi ñoo ma jox sagaru njaab bu ñu sante ay dara sama yaay sant ay dara kon macha allah loolu am na lu fa ne maa ngi ñaanal yàlla ni ñu bokkal réew mi yàlla guddal seen fan leen rawatina cheikh Mountakha ibnu cheikh Mahamadul Bachir ibnu cheikhul Khadim naka noonu toujours moo wax ko suñu mbay Mansour day wax dëgg mooma mag waaye nag du tere nit dana mag baayam mag na ma waaye ma taxaw taxawaayu bàyyi ndax li ko indi dama daan ñëw ci ki nga xam ne mooy da baax ñu ànd dem ne ko papa Baye Abdoul Aziz mu ne ma danaa la wax ne sama baay waxoon sa baay sama bàyyi dañ ko yónnee ci sa baay dañ ko ni sama baay mu ne ko Baye Alaaji Malick mu ne ko duma sa baay sa mag laa kon nag su fekkee ne sama baay sa magu baay la sama baay sama magu baay la kon yow sa mag laa kon doomeem euh, Abdou Aziz doomi alaaji Mansour Seydou Xawme doomi Sëriñ Habiba doomi Sidi Ahmed ak doomi Sëriñ Babacar lu ñuy doon samay mag waaw samay doom man maay kuñ ko dese ci baay man rek maa fi mën a ne baay alaaji Malick ku koy waxati nekk fi maam rek ñoom itam mag ngi leen di ñaanal incha allahu te di ko warlu incha allah danañ delluwaat di gàmmu di ubbi jàkk yi di ubbi jumaa yi te dara du xew lu may jàmm dara du xew lu mooy jàmm ndax suñuy yiw seen yiw la seen yiw suñu yiw la safaan ba na ko noonu te duñu xajal ñi nga xam ne ñoo fi taaloon aywa wala xayya lépp day maase rafet baax lépp yàlla da koy yiwal ndax loolu nag cosaan la ci kër gu baax lu ko noonu Seydina Ababacar du toog ñeent fukki fan yoo xam ne julli siwul ci jàkka ji te yonent bi nekk fi waaw foofu est nit ku baax fa jaar ah? su fekkee ne nag fexe nañ ba sëñ na sëriñ ba mënta ñëw julli ci gannaaw yonent bi pendant ñeent fukki fan nga xam ne seytaane ku bëri doole waaye ñu xamit ne yàllaa ko ëpp doole lépp day aw fa mu doon aw mel na mu doon mel may wëlbatiku itam di ñaan yàlla njaanjax mi itam mooy feebar bu bon bi ba mu njëkkee am laa leen ñaar lay doon bañ koy def ca 2STV yi ma ne leen mi ngi ci alxuraan daf ko tudde arraajifatu feebar bii lox loolu ñu naan karkar bu ñu loolu diw moom ngay yi lay lay li laaw mbaa jegewuma ko ah, waaw loolu mooy mooy raajifatu mu ne waaye fokk moom yàlla tatba'uha la cay topp ar raadifatu mooy ba mu togg feebar bi dafa togg beneen mooy bii ñu naan cent vingt bu gëléem gi yéesee rek ñaar ñëpp daal waaw dana yées dana yées waaye dafa tolloo xanaa xamuloo ni jàkk yi ñu ñàkk tijji sax ci li tax yàlla laa bari affaire bi la nañ tijji jàkk yi jàkk yi wa anal masaajida lillaahi santul neen jàkk yàlla la sant nañ ubbi jàkk yi wa qul istaghfiru rabbakum yursili samaa aleykum midraaran nañ ubbi jàkk yi inna innahu kaana a ngi fi kon nag na ngeen ubbi jàkka yi di fa listixfaar di fa tudd yàlla yàlla yërëm leen ndax euh, jaay xalu ko arab yi tuddee jaaxal na americain yi jaaxal na allemand yi ñoom ñaar ñëpp lëkk nañ defar nañ ko ba pare ne wóorul ba pare nee sax wóoru leen ndax danañ dana tere feebar bi dellu si ko jëlam déet ala kulli xaalin Sénégal bu dëkk yépp melee ni Ndar yiw rek a fi wàcc yiw rek a fi wàcc maa ngi leen di gërëm bu baax a baax leen tural nuyoo di leen euh, nuyu ci turu soxna Ayda Si Iyaan ak turu xalifa ba di Seydi Ousmane Sy Noureyni ibnu Ahmad Iyad ak ci turu ka nga xam ne moom mooy Zaki iyaan si ak ki nga xam ne mooy Umaani mo euh, di nuyoo bi ma bokk man ak soxna Umu Kalsum si da di leen ko jox pour ngeen nuyul ñu waa Ndar nee na incha itam dana ñëw ndar am na nag affaire boo xam ne moom moo jaaxal ñépp lu tax coo ceebu ndar ah. buñ ko toggee ndar mu neex te ki ko togg bu ko dekkee ndakaaru du neex <laughs> waaw waaw question la ci jigéeni ndar yi bu ñëwee ndar waxtaane jërëjëf ñu tëjee ko gannaaw bu ma gë gërëmee surtout Ahmed Iyane si mu mag ma laa ma gërëm Alioune Diallo. ana ana ana kii ana kii bi kees ma lay wax. Hmm? waaw. waaw kii. Kaal gii nga joxoon ma ko xalifa ko ndax fii laa ko naroon a joxe. yow Alioune. Mm-hmm. ne ko mooy Kaala imaama.